fii nag euh, amee internet euh, si euh, fi nga xam moom mooy Sonatel Parcelles Assainies bu la neexee nga di sopp xim jàkkaarloo ko Parcelles Assainies fekk waa ju baax tudd ku baax. Moustapha. Ah, Moustapha fii ngay liggéeyee. fii si fi lay yow looy fa lan ngay liggéey fii. man lu ñuy wax revendeur lay def. ah revendeur. mooy ne ci avance bi liggéey. Mhm. comme jaay téléphone. Mhm. jaay puce. Mhm. et récupérer puce indee carte d'antenne loolu la ñuy li xew gis nga ko. dégg nga discours président Macky Sall. Mhm. ñii nee nañ dafa nooyal ñii nee nañ euh, daawul waxee noonu. Mhm. yow ban jàngat nga si am. waaye Macky Sall loolu kese moo ko war ah. moo ko war loolu moo ko war parce ñun ay njabootam lañu. jeunes bu ñu meree génn def sortie bu ñaaw bi ñu baal ma ci kàddu yi su génne def war a nooyal parce que loolu mooy rôle kilifa. yow mii tey boo nekkoon sa kër sa njaboot def ñu xam ne si daawuñu ko def soo génne da nga changé discours nooyal li mu def dañ ko ciy félicité mhm. vraiment discours bu mu def c'est extraordinaire. ñëw na Noël mhm. li seen i doon ñaxtu mu taxaw wax ni li ngeen doon li maanaam seen naxar dégg naa ko premièrement couvre-feu bi nee na dafa bëggoon jeunes yi jeunes euh, ñu bëggoon mooy mu dindu ko carrément mhm. dindu ko mais jëlee ko ci 9h bi yëpp ba 7h mhm. laa tamit super ànd nañ ci mais yeneen discours yi nag tamit ànduñ ci ah. mais mais discours discours Sonko bi ah, ah. ànd nañ ci parce que masawu na nit ko su jaaxale wala mu mer soo ñëwee bul bul bul xëpp ndox bu tànk ñëwal masawu ko laaj lu ko métti lan la soo ko mën a saafara nga saafara ko. Euh, tey jii euh, gars yi yàq nañu Sonatel bi. Mhm. Euh, lu mu def seen liggéey yéen lu mu yàq seen liggéey. vraiment sooxe na trop. Mhm. trop trop li ma wax tout à l'heure rek Sonatel mhm. seen liggéey bu sooxee ñun aussi suñu liggéey day sooxe parce que ñu fiy ñëw Sonatel bu ñu duggee seen seen soxla faju ndesit yooyu ñun ci la ñuy amaat te bu fekkee Sonatel liggéeyul client yi bu ñëwul ñun duñ mën a liggéey duñ mën a liggéey vraiment métti ni mu benn lu métti na ko ci ñun fukk et puis ñaawul nañ tamit geste bi am trop parce que li ñu yàq suñu alal lañ yàq vraiment surtout benn zone mu yàqal kenn dara euh, tey euh, deuil national moom la président de la république décrété euh, noo ko jàngatee rafetlu ko trop mm-hmm. et puis avant tout ñi masu ñi nga xam ne si dañoo ñàkk seen bakkan di wax yàlla yërëm leen ñi xam ne aussi dañoo blessé di seen lal hôpital yi ñu leen ñaanal yàlla yëkkati leen bañ dalawaat seen liggéeykaay vraiment geste bu président Macky Sall def deuil national rafetlu nañ ko trop loolu ko sama war même benn bakkan sax su fekkoon moo ci ñàkk benn bakkanam benn nit su ñàkkoon bakkanam sax deuxième national jaawat na waxuma ma douze personnes wóoru ma xaw ma onze xaw na vraiment super ngay wax sénégalais yi sénégal li ma leen wax mooy sama mbokk jeunes yi bu ñu amatee lu ñu naxar yi mën nañ def manifestation mais su buñ ko autorisé mais buñ yàq buñ yàq dara lu ñu yàq yëpp suñu àll lañ yàq parce que am na ay magasin yoo xam ne yàq nañ ko doomu sénégalais moo ko moom Sonatel bu yàq nañ ko xëy na xaw ma Sénégal moo ko moom xaw ma moomu ko mais ay doomu Sénégal liggéey Sénégal la ko moom waaw tey liggéeyuñ mhm. yàq nañ Auchan bi ay doomu Sénégal ñoo ci doon liggéey tey liggéeyuñ yàq nañ station di kon métti na ça une semaine wala lu ko liggéeyuñ fu ñuy jëlee dépasse te fii boo liggéeyul doo am dara jërëjëf merci Amdy yow fii ngay liggéeyee waaw waaw Amdy euh, discours euh, président de la République euh, wax na mhm. dalal na xel yi mhm. ndax loolu dal na sa xel waaw président moom wax dëgg yàlla am gis nañ message bi mais amuñ leen luñ ko wax dul ne maanaam daal ñun en tant que seen Sénégal lii dañ ko yàgg bëgg ndax euh, man ci sama xelum bopp dafa dafa waroon teel génn wax ak jeunesse bi parce que gis na ne bi mu waxee rek la la solution commencé di am parce que njiit loolu lañ ko dee bu problème taxawee nga teel a réagir ndax coow am na fu ñu commencé am na ñu ciy dégg wala am na ñu ciy gis bu leen teelee gis rek mën na bañ a yegg fenn. ñu bari ñuy wax ni. Mhm. Euh, dafa nooweel. ndax euh, yow loot noonu nga jàngatee. waaw ci benn côté mën nañ ko parce que tamit njiit euh, en plus wax dafa yombul. Mhm. surtout communication da nga toll foo xam ne. Mhm. peut-être euh, gis-gisam. Mhm. wala fi mu fi fi fi mu fi mu maanaam bëggoon waxee dëgg-dëgg. Mhm. il faut que nga concentré bu baax doo nga xam maanaam li fi waroon mu doon waxee. Mhm. pour nga comprendre daal l'essentiel. gaa nag xaw na nooy am na fu ñu ko doon séentoo am na nu mu waroon a waxee. mais xam nga euh, du lépp lañ mën a wax waaw. réew maanaam mbir na tool foo xam ne du lépp ngay mën a wax. kon ni mu waxee daal jàpp nga ne lu baax la dalal ñëpp dalal askan wi. waaw mais man leen rek laa ci laa leen rek laa la laa xam ne moom instant bi su ma ko doon waxaat dama naan ko beneen yoon communication bi mhm. fi ñu koy gën a séentoo mooy maanaam ci mbirum euh, ndaw ñi mhm. mu ci insister mhm. ndax ndaw ku na xam na ne moom mooy réew mais tamit euh, bañ di demee euh, après comme ça dem bañ ñëpp ne euh, ëpp na nga doog di wax man foofu daal lay waxee nañ teel. pourtant moo ne nee na am na 300 millions yi nga xam ni. at at bu nekk si ñett at yi ko desee. at bu nekk dina def 100 millions pour ndaw yi. ndax loolu euh, rafetul. non rafet na. Mhm. waaye xam nga ne Sénégal ñun dañoo am benn problème. ñun dañoo am dañoo mën wax. mais jëf mooy def. xam nga dañ ne duñ duñ duñ duñ focaliser rek ki wax il faut ñu gis jëf. ndax ñun Sénégal yàlla na yàlla baal politiciens yi mhm. ñoom ñëpp dañuy wax naan waxi politiciens yi wala waxi njiit mhm. ñun daal li ñu gën a soxla mooy jëf jëf yi action waaw euh, tey mu def nag décrété euh, journée euh, de deuil maanaam tey ji mhm. ñuy vraiment jaale ñi nga xam waaw di jaale ñi nga xam ne perte na ci seen i kii noo ko jàngatee loolu waaw mu doon lu naqari loo xam ne neexul kenn vraiment di jaale ñi nga xam ne yàlla moom na ci seen i ñu jaale seen mbokk te di di leen ñaanal fan jógee eh, fi ñu jógee fi ñu jëm gënal leen ko di ñaan lii moom yàlla bu mu amati senegal ndax vraiment lii moom doon na loo nga xam ne mhm. yàlla bu mu fi amati ndax eh, am na lu def ci réew loo xam ne mhm. kenn xamu ko ndax ñun xamun woon bii Sénégal mhm, amoon nañ beneen beneen kanam bu ñu xamoon budul bii waaw jërëjëf ku baax baax na jërëjëf toujours si Soprim comme ni ñu waxee rek kon ñu jox suñu masque euh, ñu ngi dajeeg waaju baax noo tudd Euh, man Aliou Diop laa tudd. Ah, Oustaz Aliou Diop Oustaz Aliou Diop. Ah. ñu ngi lay nuyu baax a baax. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax. ana Ndiayeen yi Ndiayeen ah, ñu ngi fi de bëgg a mburu rek. <laughs> Oustaz dégg nañu président Macky Sall def discours. Euh, discours dal. Mhm. discours apaisement. Mhm. yow ban jàngat nga si am. waaw discours bi moom euh, sant yàlla bu baax a baax a baax di am kontaan ci discours bi ndax njiit moom mhm. bu jiitee bu jiitee mbooloo mu am lu xew ci réewam wala lu xew ci askanam rawatina muy xew-xew bi métti bi balaa ñuy wax sax ñi jaale képp koo xam ne bakkanam rod na ci waaye di mastawu nag képp koo xamante ni alalam yàqu na ci waaw discours président bi duñ def lu mooy euh, di ci kontaan ndax lu tax ñi ciy kontaan mooy jàmm la woote euh, te réew mi jàmm lañ xam waaw te jàmm si lépp di mën a amee. soxla bu dee ñaar rek jàmm dafa am mhm. soxla bu nekkee nit buy am ñaari soxla jàmm dafa am mhm. euh, boo xoolee buñ demee ba ñu ne wàllu éducation bi njàng mi tëj nañ ko une semaine mhm. transport bi oto dootul dugg Ndakaaru kon xam nañ ne Euh, mbir mi lu mu gàtt gàtt rek ndem jàmm amul rek affaire baa ngi rës mu ngi daan day métti waaw kon nu ñu gisee discours bi mhm. mu woote jàmm kooku moom sant yàlla baax a baax a baax a baax sant bu baax a baax a baax tey mhm. euh, si alxames bi mu def journée de deuil mhm. national euh, di dëjël waaye di massawu ñi nga xam te ñoo si loru waaye ñu si génn adduna tey noo ko jàngat tey en tant que oustaz waaw di am kontaante bu baax ndax euh, euh, dëj boobu ñu fi jógee mënatuñ leen a remplacer dara lu mooy ñaanal leen mhm. euh, waaw te ñooñu ci liggéey la ñu nekkoon ci liggéey la ñu nekkoon bu ñu gis état bi bu ñu gis opposant yi na ñu gis démocratie bu ñu gisee démocratie rek dañuy jàpp na ñooñu ñi ngi ci yiwu borom bi tabaraka wa taala mhm. Mhm. ndax arab dafa wax ne wa xidmatul awtaan fardu xalal insaan mun a fexe liggéeyal sa réew Euh, fexe taxawu ba sa réew jëm kanam kooku farata si doomu aadama bu ne mm-hmm. waaw kon ñu ñu nga xam ne jógee nañ fi ñu leen di ñaanal mm-hmm. kooku dañ ciy am kontante xam ne loolu lañ leen deseel mm-hmm. ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne dafa wax ne innama yalaqu muminu min xamali ba da mawti xel man xala moo aw nasoo aw waladan saalihan tarakoo ma aw mushafan wa rasoo ma aw masjidan banaahoon aw bëran lim mu ne aw masjidan banaaho mu ne aw bëran Euh, najaahu mhm. mu ne aw sadaqatan axraja min maali talhaqu ba'da mawti mhm. mu ne doomu aadama buy dund si kaw lépp lu mu fi mën a teg bu daanoo loola daan ba mu des juróom-ñaar juróom-ñaar yooyu mhm. mu ne ba sa njëkk mooy xam-xam bu muy tasaare beneen ba sa topp mooy aw waladan saalihan tarako aw saaleen saalihan tarako mu bàyyi fi doom ji baax wala mbokk mu baax mu di ko ñaanal mhm. te tey ñu ñu ñaanal suñu mbokk lañ mhm. kon nañu jàpp ne ñun procès ñu fi jogee lañ mhm. waa kon loolu moom dañ koy rafetlu baax a baax euh, fi ñuy jeexale moom mooy euh, xale yi yàq nañu euh, war nañu manifester waaye pacifiquement maanaam manifester dox dox ñaxtu toogaayu toogaayu ñaxtu waaye bañ a yàq waaye yàq gi bare na noo ko jàngatee waaw yàq bi moom du yoon lu mën a am mooy nit ki lépp lu ko naqadi mën na génn signalé ko mu nekk lu rafet te état bi itam bu askan wi génn yooxu dara na leen bàyyi xel lool dafa mel ni euh, nu ma gisee ñi bàyyi xel ndaw ñi si mbir mi mhm. yàgg na manifeste yàgg na am yàq amul ñi génn ay discours discours bi dafay mel ni lu luñ teg rek muy nelaw te tey nu gisee ñi bàyyi leen xel ni yëg naa seen tawat mhm. oh, bu ñu woo loolu nañ ko gën a farataal bu ñu wootee jàmm bu ñu wootee jàmm ñu ne yëg nañ seen tawat dana tax ëllëg jàmm rek la ñuy woote waaye xam nga bu ñu wootee jàmm tey wuñ leen jàmm suba faalewuñu leen bu ëllëgee ñu yàq ñi faale leen buñ bëggaatoo daal rek dañuy dañuy dañuy wiise ne nañu yàq ndax ñi faale ñu waaw loolu message boobu foog ñi jéem waaw waaw foog ñi jëm koo dox ci xeli ndaw ñi daal mm-hmm. waaw ndax waaw mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum ba tey ñu ngi fii si Soprim euh, ñu ngi daje waaju baax noo tudd. man maa ngi tudd Ndiasse Gueye. Ndiasse Gueye ah mm. añ nga Gueye nga de. non tuuti rek te man maay man maay sa buur. non <laughs> yow xam naa aña ko yow. ab kenn nga non ñun duñu añ ñun. <laughs> kon aji aji def ñu ngi sant yàlla. voilà donc euh, dégg nga discours président Macky Sall. Mm-hmm. mu seral mm-hmm. maanaam mu def lépp. Mm-hmm. si ni na dal. yow ban jàngat nga si am. waaw Macky loolu mu def ma moo ko war. parce que moom mooy président de tout le Sénégal comme moom mooy suñu président ñun ñëpp moom loolu rek moo ko war pour mu génn wax ak nit ñi ci dal mais nag pour man dafa yéex dafa yéex waaw daf ko waroon teel a def soo yoree sa kër xëy gis si loo xam ne si nii euh, jaaduwul da nga war a teel a jóg wax ak nit ñi parce que keroog affaire yi dem na ba ëpp ay loxo su génnoon benn instant rek wax na fi mbir yem dafa yem dëgg tey mu def journée de deuil ñu nekk jeudi euh, tey euh, yow noo ko jàngatee wax dëgg yàlla am nañ ay ay bakkan yu mu comprendre ko ba ni tey nag nañu euh, wàcce drapeau yi ñu ñu dajal ñi nga xam ñoo faatu ban jàng nga si waaw parce que loolu c'est normal parce que benn bakkan dafa for si yàlla bakkan yàlla lu mu gën a fonk mooy doomu aadama léegi nag boo jëlee bakkan doomu aadama ci lu dul yoon kooku suñ digganteeg borom bi xam nga loolu dafa yéeme. waaw day yéeme moo tax nag comme ni mu def noonu tamit c'est normal mu def ko mais tamit beneen yoon ñu teel a prévoir ba lii ñu bañ ñoo ti quoi parce que lii rafetul ci image Sénégal parce que lii nii dafa nekk loo xam ne si lu doy waar la. Euh, seetaan nga euh, euh, si télé yi wala sax kay na nga si say téléphone si réseaux sociaux yi. que gars yi bi ñuy marche bare na ñi nga xam ni dañ doon raas dem maanaam ñu ngi doon yàq euh, non seulement ñu ngi yàq mais ñu ngi piller maanaam di sàcc alalu jaamur wala sax ñuy agressé euh, yow en tant que jeune euh, noo jàngatee noonu ak lan ngay wax jeunesse sénégalaise waaw loolu moom man rafetluwuma ko moom parce que lu mu métti métti métti nit loo moomul waroo ko jël te man pour man côté boobu noonu ñi koy jël noonu loolu sàcc la ci sama xel mu gàtt laay waxee nag dëgg waaw man su doon man la du ma ko jël dëgg te su ko suñ ko indi woon si fi ma dëkk du ma ko jël mm-hmm. kon tey ak lu mu mën di metti métti rek lu dëkk bi tar tar tar nañ ànd ak suñu ngor ànd ak xam ni yàlla moo fi nekk voilà xam nga dañuy wax gor dafa war a il faut que balaa ngay gore nga toog ci mm-hmm. mais goro ngor dafa gor dafa war a toog ci ngorom même bu foo dara nekkul yow da nga war a gore mm-hmm. parce que yàlla moo la sàkk ba pare euh, te dina am lu mu la jox kon tey ay manifestation warul tax ngay dem di jël yëpp jàmbur wala ngay dugg ci loo warul def mhm. loolu yëpp ñàkk éducation bu baax la tamit mhm. te tamit jeunesse bi ñuy jàppale leen mhm. parce que dañu sonn am na ñoo xam ci da ngay xam ne ñii dañu sonn waaw loolu moo ci dugal ñu bëree bëree bëree bëri léegi nag yàq googu gis nañu dafay impacté euh, gaz mi ngi manqué euh, tey essence mi ngi manqué léeg nga dem bëgg fay facture euh, Sonatel fekk yàq nañ ko tey lan ngay wax say moromu jeunes yi nga xam ne tey ji mën nañoo génn waaye tamit ñu bañ a yàq. waaw mooy mooy mooy comme ni ñu koy waxee rek. Mm-hmm. xam nga nit moom mën nga wane li la naqari te doo yàq. Mm-hmm. mën nga wane li la naqari doo yàq. mën nga dox def sa marche doo yàq mais tamit état bi tamit bu nit ñi di marche. Mm-hmm. ne leen bàyyi ñu marche. police yi ñëw encadré rek boo nga xam ne si nii ñoom seen message na jàll. léegi su message bi jàllee rek. jeex na mais suñu leen bàyyee ñii di sànni xeer ñii di saaga fii. mooy indi affaire yu mel nii parce que maa ngi seetaan case keroog benn booy buñ fa buñ fa gaañ maa ngi dégg sax amoon na métier di di ko def mais moom itam yooyu yëpp xam nga lu ma lu ma ñaaw loola daal man loolu rafetlu ma ko te jeunes yi tamit ñu dem jàngi métier mm-hmm. nañ dem jàngi métier bañ a basé wu ci état bi parce que suñu état yi nii léegi tamit mooy loolu daal moom moom la yàlla xam doone daal jërëjëf Ndiasse ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ bu baax sëriñ ñu ngi fii toujours nag si Soprim ñu ngi daje nag suñu benn papa papa noo tudd. Ibra Cissé. ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. yaa ngi si Dakar 92 point com. Euh, mm-hmm. tey jii euh, dégg nga discours président Macky Sall mu apaisé wax discours bu dal wax woo ñëpp si dal noo ko jàngatee. waaw premièrement li ma ko jàngale mooy discours kilifa la. Mm-hmm. ndax macha allah bi mu waxee ci la jàmm dellusi. Mm-hmm. kon discours bu am solo la. beneen bi ci des wax na fi ay point yoo xam ne lu réew mi soxla la lu ndaw li soxla la rawatina waa banlieue bi parce que comme dem na xam na jafe-jafe askan bi ah, li waral seen colère ba tax ñu génn ci mbedd mi kon wax dëgg yàlla war na ko mën a saafara te comme diggé na ko itam ñoo ngi xaar diggé boobu mu def ci ay action yu mu gën a gaawee ndax soxla nañ ko. soxla nañ ko tey euh, am na ñu si euh, euh, faatu maanaam ñu si génn àdduna. Mm-hmm. ba tey si alxemes bi def na journée de deuil. Euh, maanaam ñuy fàttaliku ñi nga xam ñoo fi jógee ñaanal leen. Euh, ba ñu wàccee drapeau yi en berne. Mm. noo ko jàngatee ak euh, loo si wax. waaw premièrement journée bi moom ma rafetlu ko ndax lu jaadu la. Mm-hmm. ay doomi sénégalais buñ génnee di xare. Mm-hmm. man xare laa koy tudd maanaam di xeex. Mm-hmm. ngir seen yëfi bopp. bëgg wàcc ci liggéey c'est normal ñu dëyal leen. may massawu nag njabootu ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan maa ngi leen koy jaale mhm. di ñaan yàlla xaaral leen aljanna di ñaanal ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu itam yàlla na yàlla wérale leen mhm. di ñaan itam li taxoon ñu def loolu mhm. yàlla na ko yàlla saafara ba loolu duutu fi amati mais lu metti la vraiment ay doomu aadama yuy wàcc di ñàkk seen liggéey ci mbirum politique kese lu doy waar lu doy waar lu daal yàq bi bare woon na euh, am na ñi nga xam ne dañ naan ñii gàmm ak ñii raas dem bokkuñu hmm. euh, euh, yàq ji xale yi def nga nekk mag fekkee jamono yu bare nga xam ni mën na répercuté wu si suñu dundin ëllëg surtout su ne doom wala su nay sët lan ngay wax ndaw ñi pour bu beneen ne waaw premièrement rek may ñaax ndaw ñi di leen xamal ni nit du yàq alalam nit du seet li mu moom mu di ko taal parce que boo legee moo koy wutiwaat koom-koom bi ñu yàq ñun ñoo ko soxla te dañoo nekk réew moo xam ne réewum ndool lañ réew mu ndool nag du yàq koom-koomam euh, daf may fàttali nag euh, Sénégal euh, ci atum naar ya 1990 ca commencement ba dañu commencé woon di yàqal naar yi mais biñu demee ba gis ñu li ñu yàqal naar yi dañu mujj dugg ci bitigu Sénégalais yi comme ni nga ko waxee kiiraas jéem a kiiraas leneen léegi kiiraas leneen moom bu gisatul li nga xam ne maanaam ki mu moo ko moom alors que day dugg ci li nga xam ne moom moo ko moom loolu moo waral yàq bi bari euh, di lu metti nag parce que man mii ngay waxal boulangerie laa yor mais problème mu gasoil maa ngi ko am ndax yàq nañ station yëpp ba oto oto saar yi dañoo taxawoon ba oto yi euh, ñu ngi am ku ñu dendal euh, dajeeg moom fii si Soprim ba tey euh, sorewuñ dara si marché Gueule Tapée salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah tur bi naka la Khadim si Khadim ñu ngi lay nuyu di la ziar sëñ Khadim ñu ngi la koy delloo bu baax a baax discours président Macky Sall dégg nga ko mhm. mu woote apaisement woote dal ñoo ko jàngatee muy lu rafet lu ñu doon xaar ci moom mhm. en tant que président de la République parce que sëñ bi jàmm rek ay jàmm yal na nu ko yàlla may te sottil nu ko te nu tëyal ko sunu bopp te buñ ko amee nan ko suuxat ndax jàmm dañ koy suuxat jàmm boo ko suuxatul da koy ñàkk jàmm dañ koy suuxat euh, suñu njiit yi muy suñu politiciens yi discours yu mel nii la ñuy xaar ci ñoom ak di ko jéem a jëfe pas wax rek sànni mais wax dëgg yàlla président comme dem nañ ba gis na gis nañ beneen xarkanu président président bu taxaw d'accord ne problème am na. Mhm. président bu taxaw d'accord ne ndaw yi am nañ jafe-jafe. loolu loolu la ñuy xaar ci moom te loolu moo taxoon ñu wateel ko. Mhm. pour mu jaamu suñuy soxla. Mhm. ah comme nag yàlla dogal na ne taab gi moom fii la bënne. ba moom reconnaître na ñu ko ciy sant tey xaar mu jëfe ko nag. xaar mu jafe ko euh, si jafe bi googu tey ji mu def journée bi nga xam ni daf ko jagleel ñi nga xam dañu dañ dañ dañ dañ si faatu mhm. si manifestation génn si àdduna ñu ñaan yàlla xare leen àjjana amiin euh, euh, noo ko jàngatee ak ban gis-gis nga si am de nationale bi xam ne décrété na ko tey ji si alxames gi muy lu rafet muy lu rafet muy lu jaadu lu mënul ñàkk waaw duñ ne duñ ne duñ ne duñ ne duñ ne surprise la ci ñun parce que doomi réew mi ñoo dee ay ndaw yu tuuti bi ma xoolee chiffre bi ci net bi léegi ay quatorze cent quinze cent dix sept ans ki ci gën a mag lu ma am xaw ma vingt sept ans xaw ma mhm. ay xale yu ndaw xale yoo xam ne avenir la mhm. xëy na kii moo waroon nekk président ëllëg xëy na kii moo waroon nekk avocat ëllëg xëy na kii xëy na kii xëy na kii seen i yaay ñàkk seen i baay ñàkk Sénégal gépp ñàkk mhm. yaakaar naa la minimum mooy ñu xam ne am na lu xew ci réew mi lu mettee métti kon lu ñuy rafetlu la tey ñaan yàlla nag yàlla bu mu fi amaat. yaa rabbi yàlla bu fi euh, fi ñu ñëw di ko jeexale moom mooy euh, yàq gi kas gi manifester am nga droit. am nga mhm. droit taxaw taxawaayu taxawaayu ñaxtu. Mhm. wala nga doxe ko wala nga toog ko sax. Mhm. Euh, te bañ a yàq. ba nemmiku na ni yàq gu bare nag. si côté yëpp. si Auchan yi. si station yi. ak ba si tey ay këru sax kilifa fii wala bokk yu demee noonu. tey ji lan ngay wax say ndaw. nga xam ñoo lay setaan. waaw ndaw yi de li ma leen di wax mooy nit moom bu amee benn néeg dem taal ko dina waral mu fanaan biti waaw maanaam yàq moom wax dëgg yàlla xeex moom xeex la bu xasee ba am rek problème bu xasee ba am am na ni mu amee fii ni la amee fépp problème bu xasee ba am am na waaye nag nañu xam ne la jig américain bi jigut africain bi rawatina Sénégal la jig bi jiguñu parce que France ni ñuy yàqee dafa jéggi dayoo mais ñoom am nañ ko mën nañ ko ñoom fi ñu yàq tey bu subaa boo fa jaaree doo ko xamaat ñun nag lii ñu yàq mën naa ne la dans six mois dans un danga ko fay fekkaat euh, doomi Sénégal yi nga xam ne ñoo ci doon liggéey tey ñu nga kër ga toog dañuy commencé waat duñ commencé waat seen contrant day wéy du wéy muy waa Auchan muy waa Total muy autoroute bi nga xam ne léegi laa fi jaar Eiffage euh, mhm. c'est vrai français yi ñoo ko moom mais pourcentage bu tuuti nañ ci moom parce que taxe rek lañuy ñuy suñu alal la mhm. tey dañ ko bañ bane ne Sénégal mhm. yaakaar naa su ma ci li ma dégg su amee cent pour cent sénégalais ñoo ciy liggéey ci li ma dégg kon ndaw ñi mhm. maa ngi leen di ñaax ne leen Auchan ba ngeen yàq ay doomu aadama ñu nga tëdd kër ga ci seen dépense ca la doon jóge seen i moroomi baay seen i moroomi yaay seeni moroom seen i rak seen i mag suñuy sax bokk. Mhm. kon yàq gi bu ëllëgee nañu manifester ba àdduna yëpp xam ne am nañ lu ñu naqari mhm. mais bu ñu yàq mhm. waaye nag autorité yi ak état bi ndaw ñi ñoo moom réew mi ñooy ëllëgi réew mi suñu nee dañoo am lu ñu naqari may leen ñu dox ñaxtu bàyyi leen ñu dox ñaxtu wàññiwul dara parce que nag bu ñu waxantee dëgg manifester bu fi am yàq am ca parce que dañ ko encadré wut accepté wuñ ko mais manifeste buñ ko accepté mën nañu dox ba buntu palais de la république dara du am coow du jib saxar sagar du xëy ni koy waxee mhm. waaye nag nit bu amee lu maanaam boo nit boo ko xojee ba noppi ne ko doo yuuxu mhm. ah bu mënta yuuxu it dana yëngali cëram de mhm. loolu nag moo nu dal tab gi nag dafa toj yàlla na wér nag yàlla na wér waaye daal eh, yàq moom baaxut ndax ci li ma dégg yonent bi sax dafa wax ne dem ca géej ga di tànq di sotti ci saabal bi sax yàq la kon yàq moom lu ñuy kon condamné la waaye nag li gën mooy nit ki bu amee lu ko naqari bay ñaxtu nga jox ko ay droit parce que bu fekkee dañ ne réew mi constitution bi lii la wax kii ne lii laa bëgg te mi ngi ci biir constitution bi acceptel ko ko accompagner ko tey bu ñu xoolee français yenn sénégalais ya nekk France dañ leen accompagner ñu ñaxtu ñu ngi nemmiku que gaz mi ngi manqué essence noonu ak yeneen ak yeneen Euh, est-ce que tey jii. Euh, salaamaaleykum salaam. Euh, tur bi naka la. bu Bounama Sall conseil municipal Patte d'Oie. voilà Bounama ñu la fekk fii actuellement si si enfin ñu ngi daje ak yow dégg nga discours du président de la République barki démb noo ko jàngate waaw ma lay di la gërëm discours bi day ni ñu ko jàngatee discours bu responsable la. discours kilifa la. Euh, kilifa guy waxantaan ak njabootam te lu sénégalais yi soxla woon la tamit ndax dëkk bi yëngu woon na yëngu boo xam ne soxla woon nañu kàddu yu mel noonu jógee ci moom jëm ci askanam euh, wara na ni moo yilif ñëpp wara na ni moo njaboote ñëpp def na discours boo xam ne daal ah am na jàngat yu am solo yuñ ci jàng mooy ne woote na jàmm woote na ñu doo ñu nekk benn woote na ni euh, démocratie aussi am na solo manifestation ak leneen ak leen di ci am waaye wara na ni aussi yàq moom baaxul ci dara voilà. am na appel bu mu lancé wax ni dina jàppale jeunes yi euh, trois cent milliards cent milliards at bu jot mu war ko def si ndaw yi yow ban jàngat nga si am ñii nee nañ doy na ñii nee nañ doyul. waaw jàpp naa ne baax na ndax wañ boo gis rek ci benn lay commencé euh, ndax jeunes yi lu ñu soxla la bu ñu demee ba mu am njàngat boobu ci situation bi réew mi amoon ak xale yi fi ñu toll ak coono bi ñu jànkoonteel. Euh, mu génne lu toll noonu euh, ni da koy jagleel euh, xale yi nekk na lu baax bu ñu sañoon nag mu ëpp ko waaye nag ak contexte bi nga xam ne fi la réew mi toll ak Covid 19 beeg li mu àndal lépp ci ay coono bu demee ba génne loolu jëmee ko ci ndaw ñi dañuy ñaan rek wax dëgg yàlla mu egg ci ndaw ñi ndax di ko wax aussi baax na waaye mu egg ci ndaw ñi aussi bokk na ci li nga xam ne moo gën. gars jàpp nañu tamit discours bi tamit ah, dafa seral dafa seral trop. Euh, ñi nañ dafa en tout daal ragal la tiit la lan la yow noo ko jàngatee. non non man jàppee ma ko ragal ak tiit li ma ko jàppee daal mooy responsable la kilifa gëla guy waxtaan ak askanam euh, ci moment yu mel nii nag euh, dafa am nu nit kilifa war a waxee ak njabootam waaye waroo waxal ci tàngal da nga war a woote jàmm da nga war a woote seddal parce que loolu moo ko war moom te noonu ci loolu lañ ko doon xaar wax dëgg yàlla def na discours boo xam ne am na solo trop te mënees na ko dégg. mu mel na tamit dégg na kilifa diine yi. waaw looloo ko war xam na kilifa diine yi dañu am solo ci réew mi ndax ñoom ay régulateurs lañu ay régulateurs sociaux lañu euh, di leen déglu di leen bàyyi xel aussi am na solo trop ci ci ci ni ñuy doxale am réew bu yàlla defee nga jiite réew mel ni Sénégal ah seen kàddu ak seen wax dafa jar di sóoraale bu baax a baax ci ñi ngay doxalee réew mi ba tax na foog naa ni loolu am na solo mu leen di déglu gën leen déglu aussi am na ci solo. jërëjëf monsieur jërëjëf.